extrait interview ministre de la justice mhm. Malick Sall mhm. gars yi ngi koy partagé avec des commentaires purs et durs mhm, parce que dafa dem naan oui madame vous savez euh, ce qui s'est passé euh, les jeunes sont pour la plupart des amateurs de lutte et avec ces mesures de restriction sanitaire euh, ils n'ont plus la possibilité d'aller se défouler dans les salles de sport et faire des entraînements euh, en bordure de mer mhm. et se livrer à des combats de lutte. Mhm. Alors donc euh, c'est eux qui sont venus se défouler mhm. et qui sont à l'origine de cette violence. Alors ça été une erreur parce que yokkal nañu seen kilifa. di président Macky Sall ay noon parce que ma ñëpp dégg euh, Gris Bordeaux qui le président de l'association des lutteurs en activité nee na ñoom ils vont se constituer partie civile ut nañu avocat pour porter plainte contre cette autorité d'État pour mm. diffamation parce que mu ngi leen di tuumaal ça veut dire donc quatorze Auchan yi ñu toj yëpp mbëri dégg naa ça c'est maladroit waaw moo tax Macky Sall na xoolaat mm. bu dëkk bi di traverser une crise sociale politique ou autre ña nga xam ne bu ñu waxee mm. la ñuy yàq moo ëpp la ñuy defar na xool ñamuy yoon yónni pour ñu war a wax nit ñi rawatina un média étranger bu am un impact planétaire. Mhm. très fort bu mel ni France 24. voilà mhm. mais est ce que tamit euh, loolu noonu mu wax noonu ne mbër yi ñoom ñoo ko def est ce tey mënu euh, maam yëngalaat réew comme ni nga ko gisee woon. parce que li non non parce que amul benn mbër bu wax jooju neex. waaw benn mbër. est ce mbër yëpp. Mhm. kontaan nañu ci wax jooju. parce que mbër yi la wax. alors nee na daal ñoom. comme que depuis un an. Mm-hmm. ils sont privés d' entraînement de défoulement dans les stades mm-hmm. parce que lépp a taxaw. alors que ñoom ñoo dem def lii. kooku mm-hmm. c' est une fausse analyse. et puis tooñ na un corps de métier respecté dans ce pays parce que ñoom ñooy dundal suñu cosaan. parce que la lutte suñu sport national la. ni football euh, nekkee sport national Angleterre ak feneen. ni arts martiaux yi nekkee sport national Japon et pas mal de pays asiatiques. kii suñu sport la kon mbër yi ñoo koy dundal. Eh, ñu di ci bég parce mm. que léegi dañuy commencé sax di ko exporter. Mm-hmm. voilà mu dem wax leen loolu. Mm-hmm. mois je comprends leur euh, euh leur indignation. Mm-hmm. Euh, ministre bi itam. Euh, Malick Sall xam naa du woon yéene. waaye tarxiis na. ba wax ci loolu. alors ba wax ci loolu na def note. def demander note d'excuse. jéggalu leen ne leen jubluwuma ci yoon loolu. mais tant qu'il ne fait pas ñoom nee nañu dañuy dem justice. voilà te moom xam na ni ñii ils sont dans leur droit parce que avocat la. Mhm. ñu ngi koy wax maître Malick Sall. c' le ministre de la justice. Mhm. voilà boo tooñee toute une corporation. Mhm. il faut avoir l'humilité de s'excuser et puis on tourne la page mu daal di jeex. aussi te tamit ñu gis euh, manifestation yi mu am lu mu yàqu lu bari est loolu rafet na ëllëg tey suñu image yeneen dëkk yi di ko gis. waaw moo tax dama ne contrairement ak li ministre de la justice def. ñun dañuy jëfee. loolu notre euh, éminent sociologue euh, mon ami Djibi Diakhaté que je salue au passage mm-hmm. di faral di wax mm-hmm. nee nañ crise bu amee daal di secouer la franche la plus fragile de la société mu di la jeunesse euh, il faut éviter les stigmatisations les propos de culpabilisation mm-hmm. euh, ça ne fait que envenimer la situation alors nee na moom il préconise une approche pédagogique et inclusive alors ñun ñu ngi ci góorgóorlu parce que def naa plusieurs plateaux de télévision def naa 2S euh, euh, particulièrement TFM mm-hmm. ak DTV mm-hmm. ak yéen mm-hmm. su amee yu ma def te fàtte ko itam ñoo ñu jéggal ma euh, ñu wax xale yi ne leen vous avez le droit d'exprimer vos revendications parce que n'oublions pas que l'affaire Adji saar Sonko dépassé na l'affaire Adji Sarr Sonko c'est-à-dire ça n'a été qu'un déclencheur mmh. d'une euh, d'un cumul de frustration mmh. de longue date mm. parce que cette en désarroi alors naqar bu jeunes yi daan denc mm-hmm. ci jaaxle moo tax ci ñàkkum liggéey mm-hmm. ndóol am sa diplôme ba noppi doo am liggéey mm-hmm. ñii di dem ci gaal yi di dee ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yéen moo ko gën a xam yéen euh, gëstukat yi ci wàllu euh, taskatu xabaar yooyu yëpp jeunes yi dajale ko te amul saafara. Mhm. mais il fallait s'attendre bu buntu amee rek. Mhm. mu exploser mhm. alors loolu moo am. moo tax nañu wax ak ñoom. Euh, en en bon père de famille. nañu wax ak ñoom de manière pédagogique. Euh, wàññi seen i naqar mais doo fekk euh, tout tànk mu am naqaram ba noppi nga duut ko baaraam. culpabiliser ko stigmatiser ko. xas ko alors moo tax finalement. ñi ciy jot a yëkkati kàddu yëpp. Ils n'ont fait qu'envenimer la situation parce que comme tout le monde le sait les violences se sont intensifiées alors moo tax nag ci wàllu woowu ñun le le collectif des médiateur religieux pour la préservation de la paix civile ñu ngi bamtuwaat message bi nga xam ne moom la ñuy jagleel tout tànk yi nous sommes de tout cœur avec vous ci seen naqar parce que réalité bi wane ni Euh, seen yëngatu gu metti gi mm-hmm. te ñu bari loru ci dépassé na la ka déclenché di affaire Ousmane Sonko ak euh, Adji mm-hmm. waaye nag ñun dañ leen di wax dëgg te duñ leen jay yàq bi kenn àndu ci mm-hmm. nit ki loo am am am naqar yàq rawatina nga yàq loo xam ne sa moroom ko moom sa euh, compatriote ko moom comme ni ñu ko gisee ñu dem ci Auchan yi daaji ko. voilà euh, lakk oto yeeg. ci affaire Auchan yi justement. Mm-hmm. erreur la ngeen di gëm ne. Mm-hmm. France ko moom erreur la c'est des c'est des investisseurs français ñoo ñëw fii. Mm-hmm. dal di def loolu euh, les techniciens. du marketing jàpp ne Auchan français yi moomuñu ko. voilà moomuñu ko c'est-à-dire dañuy ñëw fii. investir en partenariat avec des opérateurs économiques sénégalais. Auchan yi donc sénégalais ak français ñoo ko bokk mm-hmm. ah ba noppi Auchan ngi dundal mille sept cent famille mm-hmm. ndax salarié yeey ku ci nekk wax yàlla nga jot sa salaire mm-hmm. dem jël sa teraanga boobu dem bokkook sa njaboot bokkook say soxna wala say waajur et Auchan mu ngi liggéey en partenariat ak juróomi téeméer cinq cent entreprise euh, commerciales et industrielles. moo tax li ngeen di gis ci Auchan yëpp parce que xam nga tubaab amul géej aw xamul géej xamul yéet te ñu ngi koy jaay ci Auchan yi c'est des industriels des mareyeurs yu signé ay con ay convention ak Auchan daal di bokk ci ser euh, ci euh, fournisseur Auchan yi ñoom ñoo leen koy livrer ak yeneen ak yeneen si wàllu njaay mu sew alors ñu aussi 17 xaw ma 14 xaw ma 17 Auchan yi ngeen toj dana am des centaines de Sénégalais qui vont se retrouver dès demain au chômage parce que xamaguñu combien de temps la euh, euh, réparation bi di jël parce que am na ay Auchan yoo xam ne seen dégâts tane na ndax dañu jël marchandise ci étagères yi rek bàyyi lépp intact mais am na Auchan yoo xam ne non seulement marchandise yi xale yi dañ ko yóbbu waaye dañu dajj étagères yi toj canalisation bi wekki climatisation yi dajji disjoncteurs yi yóbbu et cetera loolu kenn xamul ñaata temps lay jël te pendant temps code du travail nee na ñii dañuy dem chômage technique. gis nañ sax euh, ba ci station Total tamit dañ koo lakk yooyu. voilà ñaareel ba. Mhm. ci wàllu que c'est erreur que lii ngeen di yàq ngeen defee ne France ngeen koy def defu leen ko benn France sénégalais yi ngeen di lor mhm. donc au y aura des centaines de chômeurs yoo xam ne kenn xamul s'ils vont retrouver leur emploi ou pas. Mhm. ñaareel ba wax nga ko léegi. Euh, station d'essence yi. maa dégg. te certainement dana dana suivre suñu interview bi. le président de l'association des gérants de stations d'essence ñu di ko Ibrahima Fall moom dafa wax ba xol bi tooy ba ma ko déggee mu ne li laay war a suuli xale yi li laay war a suuli station essence yi ngeen toj ay tubaab moomuñu ko ay sénégalais ko moom dëgg dañu ga leen jox un nom une marque et un label français waaye ay sénégalais ko moom kon foofu tam juum ngeen fa parce que boo leen gisee fu ñu bind total rek wala nangam nga ay eh, France aca leen ko fekk sénégalais jënd na ko ba racheté ko moom ko am ay employé di leen fay foofu tamit il faut s'attendre des dizaines et des dizaines de chômeurs yoo xam ne dès demain dinañu war di taxawaalu ndax ñàkkum liggéey ndax xamuñu ñooñu tam kañ la ñuy siggiwaat kañ la ñuy jógaat alors ba tax na kon ñun dañu jàpp ni euh, xale yi mer nañu euh, mer nag moom boo ko meree doo mën a def benn contrôle waaye nag euh, nekkul maire bu ñàkk njariñ parce que ubbi na bëtu état mm-hmm. te wax naa ko ci interview yi ñu mujj def mooy ndekete yoo mm-hmm. affaire u Adji Sarr ak Sonko dafa nekk déclencheur rek mm-hmm. ab njaqare ak ay cumul de fristation yu xale yàgg denc doon ut fu ñu ko explosé mais tamit manifestation euh, jarul ni ngay agressé nit ki di jël ay alal parce que gis nañ ko ci parce que euh, maa gis ci benn interview. xamatuma ban plateforme la. média social. benn xale bu génn yore benn kees. ci benn Auchan bu ñu dajji. reporter bi ne ko waaye loo am ni mu ne keesu meew. mu ne ko ah bon mu ne waaw waaw xéwal la waa ko pour lan mu ne ñun dañu ne famille bu ndóol nekk au fin fond de la banlieue. Gloria dama ko daan dégg rek. xëy na bu ma ci je naanee benn pot ñaari yoon la ci année bi ndax dafa cher. léegi nag ak kees gi wóor na ma ne chaque jour danaa am ndekki bu fatt tarik c'est le mot qu'il am sama dégg nga café au lait moom daal grand bàyyil noonu rek daal di dem kooku aussi euh, firnde la. kon est-ce que mënuñoo xam ah, maam xale yi kon wala suñu dëkk boobu ah, dañoo dañoo dañoo ah, dañoo pauvre quoi moom laa mën a wax. waaw pauvreté bi dafa gën a feeñ dafa gën a feeñ. parce que kooku mooy premier facteur bi. deuxième bi. Mhm. Euh, dafa nekk buntu aussi pour des frustrés. jeune mm-hmm. yu am lu ñu mere woon état bi amuñu fuñ ko génne mm-hmm. alors mooy exemple bi may bëgg a joxe mm-hmm. mu di am na xale boo xam ne dañ ko fekk mu yore lu mel ni pancarte ñu daal di ci bind que nu nous nu nous nous restitue nos primes journal bi ne ko waaw yan prime ngay laaj euh, affaire sonk Adji Sarr euh, euh, jeunes yi mer di toj ay Auchan yeeg ay kii mu ne déedéet man ci ñu refoulé woon ca ña demoon Espagne ca laa bokk. nekkoon ci gaal gi. ndax suma wayjur bu jigéen. Mhm. njaay mu sew lay def. ay madd ki ay daxaar ki dem ca marché ba di jënd ki jaayaat. Mhm. ba korkoral trois cent mille jox ma. Mhm. ma dem ci sama benn nijaay mu yëkkati nangam su ma benn cousin yëkkati nangam ba ma am cinq cent mille. fay passeur bi trois cent mille. mu desee ma deux cent pour bu ma demee ma am ci lu ma téye di en attendant ma am liggéey. mu ne waaye dama ne cëpp Espagne rek. ndeke état signé na protocole ak Espagne ba ñu bloqué ñu refoulé ñu mu ne li ma gën a metti ba ñu ne cëpp aéroport état ci wàllu ndàmpaay benn sagaru dix mille francs lañ ñu jox xam nga kooku boobu dafa am meram à part mhm. ndeke mu ngi ko dencoon moom itam lii daal di nekk benn étincelle boo xam ne moo explosé loo pour euh, poudrière bi